coowal euh, gouvernement bu bees di gën di jaabaajo ci réewum Sénégal euh, ginnaaw bi président Macky Sall euh, tabbee fanweeri jëwriñ ak ñett ak ñeenti secrétaire d'État am ñu ñu génnee ca googale kuréel waaye tam jamono ji li gën a jur coow li di président Idrissa Seck mi ñu tabbu jëwriñu conseil économique social et environnemental loole nag bokk ci li waral askan bi ku ne ak xalaat bi mu ci amee. sama gis-gis mooy daal danoo diil man diil laa gis daal pàccoo réew waaw man mi wax yow Idriss Seck moo nekkoon sama candidat ci élection yi waaye décision laa am man waaw décision la am bu mag waaw nu ma xamee mooy séntu woon lii daal yaakaaru woon luy am la lu ma séntu woon mooy ma des ci bi laa séntu woon waaw waaye nag ku yaakaar ne euh, deal bi dana jàll ci nii ba kàtt ak nii jàll rek Sénégal du nangu loolu daal. nit ku nekk danga dem ba mu yàgg nga am sa xalaat pour woo. ñoo xam ne ni dañ leen a mën a jàppale ci li ngay liggéey parce que loolu aussi am na solo parce que it xool ku la mën a jàppale nga indi ko saweet mu jàppale la loolu man gisuma ci wàññeen dal bu fekkee ne moom dafa gis ne loolu sama xalaat la ni rek dafa gis ne xëy na amatul sens bu présenté wu élection pour gagner te am na yéen a liggéeyal Sénégal ci ko desee avant muy jël retraite bu gisee ne mën naa lancé wu ci côté président pour jàppale ko bu fekkee boobu la ci am loolu dañ koy rafetlu mu ne bu fekkee nag dafa ñëw pour. jël place politique rek jël ay militant am ak nguuru loolu moom day am Sénégal soxlawu ko soxla nañ leneen. sëriñ bi euh, di xamle ne lépp ay wor la ak waxi politicien ndax jàpp na ne lu ci ëpp ay wor la. wor rek laa gis waaw maanaam war na Sénégal yi daal tax moom moo doon lépp luy lépp luy euh, décret bëggatu ko kon vraiment war na xool si seen kàddu daal politiciens yi vraiment. waaw. du Mbow di duut baaraamu tuuma état bu Sénégal di wax ne nañu jàppale askan bi te bàyyi naxante bi ndax bokkul ci liy doxal réewum Sénégal waaye tam di naqarlu seen i jëf yu méngoowul ak seeni kàddu. mais opposant la rek waxu la quoi xam nga waxu opposant moom da ngay wax rek pour maanaam yow parce que opposant nga loolu moom mënut a ñàkk fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi mais nag soo demee ba nga xam ne nii nit ki wóolu na la pour ànd ak yow liggéey. pour man loolu lépp da koy fàtte ba yeneen élection ñëw quoi parce que tubaab yi noonu la ñuy politiquer et euh, yëpp aussi noonu la ñuy def parce que wax li nga war a wax après nga delluwaat ci gannaaw parce que da ngaa bëgg a ànd ak nit ki liggéey. su ma sañoon nag wax dëgg yàlla nit ku nekk rek la ngay wax ba nit ñi dégg ko ci yow vraiment war ngaa appliquer loolu daal parce que loolu la ñuy jàppee nit waaw loolu la ñuy wax loo xam ne nii da nga ko def tey it ku fal la tax ñi fal la. na nga ci vraiment góor góorgóorlu jàppale ci population bi parce que population bi sonn nañ sonn moom ci sama bopp laa koy commencé ñëpp a sonn waaw. parti yëpp côté yëpp nit ñëpp sonn. Serigne bu so di xam la ne gile gouvernement bu bees am nañ ci mbetteel ndax xaaruñ woon président Macky Sall foofu ak it di wax ne sa Seck bu dee jàppale askan bi rek moo ko tax a jug dinañ ci ànd ak moom waaye tam di leeral jamono ji seen i jëf yu méngoowul ak seeni kàddu mi ne nañ leen ko. gouvernement bi comme Sénégalais yëpp rek ñu ngi doon xaar presque lu mat 4 jours. bi mu ñëwee tamit dèjà xaw nañu bett parce jàppoon nañ ne contexte bi ñu nekk nii ak pandémie bi Covid bi faayit yi mu wane ci état yi ci ñu war a gën a investir ci réew mi jëm ci soxlum santé ak redresse économique bi. mën naa ko tuddee mbetteel parce que doon nañu xaar ñu indi ñu xarañ pour ñu mën a génnee Sénégal ci ndóolu bi mu nekk mais nekkul nañu indi ay politiciens rek parce que boo xoolee gouvernement bi purement politique la daanaka mën nañ ko tuddee. li fi am rek feek demuñ ba mu changé rek moom duñ duñ ko mën a gëm parce que chaque jour bu ñu waxee dara contraire ba la ñuy gis. loolu moom politique gu Sénégal moo ko bindoo ba ku ci lancé wu sax boo ko deful da ngay jàpp na yow defoo politique. gëwuma ko intérêt lay lay lay lay intérêt lay moo tax muy lay intérêt lay lay lay sàmm waaye Sénégal taxul déedéet ndax gouvernement bi doon ñu fi ne. ah gis-gis boobu ma ci am bon jaar na ci kii yu bëri poste yu bëri kon nag man ni ma ko mën a jàppee daal liggéey kat la. su doxalee nam daan doxalee daal wax dëgg yàlla ah ñu doon séntu dinañ ko gis ci moom waaw parce que comme ñi ñu bëri jaar nañ fi. mu mel ni nag jamono jii ci réewum Sénégal coow li mi ngi gën di jaabaajoo ngir tabbuk gouvernement bu bees askan bi nag di xam xamle ne ak lu mën di xew coow li moom bu pënd bi wuree lépp dina leer.